bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokki réew mi ak bitim réew te jiital sunub nuyoo kilifa diina yi ak kilifa aada yi yu ñaanal na sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ko waaye du ko ñaanal mboole seen xalif généraux yi nga xam ne ñoo seddalikoo ci mboole seen këru kilifa diina yépp dellusiwaat nañ ci seen émission ëttu Kër Nabi di émission bi nga xam ne day dalal mboole seen ñi tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam dangay way moo xam dangay ngay taalif te ji nag ñu tàbbi ci këruk lislaam mi kër maam Limaamu Laay Mahdiyu di koo xamante ne tànneef la ci lislaam waaye sa gub lislaam la te ñi nag ñoo ngi fii ci Cambérène Médine wetu jàkkay pël fekk fa kenn ci taalibeem di werakaan di waykat ñu koy wax Bocar Diallo Laye Bocar ñu ngi lay nuyu waaw bismillaahi rahmaani ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci sangu-sangay Seydina Limaam alayhi salaam di kontaan di nuyu àdduna di nuyu bépp téléspectateur bu SB Média di leen ziar di leen dalal di nuyu mbooleem jullit bi yeewoo ci réew mi mbooleem xalifa lislaam di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi ala rawatina sunu xalifa Duudu Muxtaar ibnu Seydi Mandione ak ay rakam ñu ngeen ñaanal yàlla yàggal leen fi di leen dalal waa SB Média di leen wax ak si ngeen si kër Seydina Limaamu alayhi salaam di leen wax marxaban di leen ziar di leen dalal bu baax a baax ñu kontaan bu baax di nuyu ñëpp di leen ziare bu wér a wér. jërëjëf euh, Seydina Bokar day mel ni nuyoo bi rafet na di nuyu baax ñi nga àndal di di say awkat ñoom itam di leen nuyu te di leen ziare bu baax a baax kon Seydina bokkar dañu lee bàyyi rek nga nuyul ñu jotaay bi nga ubbil ñu ko ak euh, tagg ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. laa ilaaha illallaaw laa ilaaha illallaaw laa ilaaha illallaaw muhammadu rasuulullaah laa ilaaha illallaaw siraatal mustaqiim laay laay la laa baada kullu sayin laay laay la laa kalaami wa naa huwa laa ilaa illa laa muhammadu rasul baritu na yàlla gën ci booleem lu nuy saxoo wala zikru laa ya jooja di tegtal ci sikar la xol di dundee ba moo tax ku dul sikar bu yàggee xolam wow mel ni aw doj man daa ma yaskuru xataa tamuutu bizaa galazi yanzilu ilayhi bil karami laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah allahu la ilaha illallah la ilaha illallah ولا يقول الإنسان اسمك قبلا لا إله إلا الله وانتهى الكلام لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله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 imaamu yaay rasulullah la ilaha illallah allahu la ilaha la ilaha illallah limaamu yaay rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah imaamu yaay rasulullah la ilaha illallah ilala yónneen nga Seydi Rouhou Laye la ilaha ilala yónneen nga leer maam Abdoulaye la ilaha illallah الحمد لا لا إله إلا الله jërëjëf jërëjëf day mel ni xol yëpp sedd na euh, zikar wi tegu na neex na dëggu na dëgg-dëgg euh, bookar béggati nañu kon bookar dañu daal di sóobu rek ci waxtaan wi euh, bookar di la nuyuwaat te di la ziyaarewaat tey ziyaarewaat xalifa laayeen wu tedd wi alwaduudu Maxtaar Laay di ko ñaanal guur fan ak wér gu sax kon Bocar ñu sóobu rek ci waxtaan wi Bocar ma laaj kañ nga tàmbale way wi kañ nga tàmbalee door di way di tagg yonente bi sallallahu waaw sëñ Ibrahima daanaka question boobu day yomb ndax Seydina Limaam alayhi salaam sunu yaakaar tey ak ëllëg yaakaar naa fii laay day jafe sax nga ni dat bii laa tàmbali ndax bi ngay nekk liir lañ lay nàmpatal ci ci ci leeru laa ilaaha illallaah donc laayeen ñoom li nu baaxoo mooy boo nekkee xale ba ay musique doo sax dox daanaka tout tànk ngay tàmbalee di way donc day jafe ñu ne année bii la ñu démarré ndax bi ñu nekkee xale xàmmee ba tey si lee la ñu xàmmee donc da ngay màgg rek di ci gën a dem di ci gën a dem yàlla di la ci gën a xiir donc mën naa ni depuis bas âge lañ nekk ci mbir mi bëgg ko ndax amaana fii Cambérène wala ci laayeen laa ilaaha illallaah mooy sunu lépp jigéen ñi sax bañ naka bu ñuy togg ak bu ñuy mënti def laa ilaaha illallaah la ñu wéetoo ndax si naa limaam loolu lañu wax mm-hmm. wax leen laa ilaaha illallaah fu ngeen mënti ne baat bi daal si lañ ñu naan daal depuis ba âge moom ngay tàmm di ko wax ba xale yi mënul wax dañ koy foowee donc si bi may fàttaliwu dëgg nag bi mag si commencé nekk dëggantaan di dem daayira di téye micro mm-hmm. daanaka ay 2013 2014 année yooyu la laa koy gën a fàttaliku daal mais pour dire vrai rek depuis ba âge ngay nekk xale ngay nekk di wayantu ba ngay màgg yàlla di la ci gën a xiir am ci amour loolu depuis bas âge daanaka noonu la noonu la demee daal mais 2013 daal lañu fàttaliku si lañ ci gën a nekk di dem si tente yi normal waaw di dem si tente yi normal 2013 waaw. jërëjëf jëf ko baax ki leerati na leerati na ku baax ki way wi ngay way eh, da nga koo donn wala doon la wala wala passif la ndax da nga am ay mbokk wala ay maam yoo xamante ne. waykat lañu waaw mën naa ni aw ma ay maamu waykat waaye amaana tagg yonent bi nattu yàlla la waaye muy nattu ba nga xam ni dañ si sant yàlla bu baax a baax amaana mënoon nañu nattoo ñuy dem di def leneen musique wala dara mais bu ñu yàlla nattoo ñuy tagg yonent bi euh, dañ si sant yàlla bu baax a baax donc sama maam mën naa ni bokkoon na ci mag ñi gàddaayoon ñëw wi si bàyyi la alayhi salaam ñu koy wax maam Alpha Penda lay jeex na donc ñun bu ñu dawul si diine rek amaana defuñu leen war. dëgg la donc bàyyi laa alayhi salaam bi mu wootee mag ñi dañ gàddaay sama maam mi ngi jógee ba Fanay. ndeysaan am Alpha Diallo waaw mu ngi jógee ba Fanay ñëw gëm si bàyyi laay donc ay sëtam di ay jàmbaar. si diine ji aussi donc taxawaay boobu lañ si am du luñ dondu mais mën naa ni Pastef la ak amour. ak nattu bi ñu si yàlla nattoo ñu koy def ñu siy sant yàlla bu wér wér nag. dëgg jërëjëf euh, tontu bi leerati na ci biir loolu ñoo ngi nuyu mbooloo seen waa Cambérène ak waa te di leen béggee bu baax a baax a baax a baax ku baax yi euh, bëggoon nañu xam waykat wi euh, waykatu Laayeen yi ndax am na ci koo xamante ne moom ngay roy kan moo ci yow sa waykat préféré. waaw sëñ Ibrahima question boobu dina xaw a yéeme am nañ ci gaa ay idole depuis baax as ña nga xam ne dañ lay motiver. si nga mbir mi nga xam ne boo leen gisee rek sa xel day dem ci mbir mi nga ngay ñaan yàlla pourquoi pas bëgg naa ñaan yàlla màgg mel ni kii waa waana mën nañ lim ku si mel ni suñu papa Seydina Niang Laay su mel ni suñu papa Baye Ngala bari na ba ci ay Ablaye Fall référence la si bari na ku si mel ni Seydi Mathiaw nag ñu koy wax sëy Seydi Assane waaw yaakaar naa kooku mention spéciale dama koy sant di ko gërëm amoon na yéene ñëw sax waaye xam naa ni balaa émission bi dee dina teew mu joué sama carrière lu am solo depuis xale yàlla boole nu man ak moom ma nekk ci wetam ànd ak daayira soob seen am jox yaakaar naa ñoom ñoo teew nii euh, depuis xale bi ñuy xàmmee ñu ngi ci daayira bi daan dem waaye moom dafa joué sama carrière lu am am solo donc référence si man sama waykat la aussi yàlla boole ñu mu doon sama xarit aussi donc kooku dafa jàpp sama carrière ci bi ma daan jàng sikar sax bu ma yëkkatee parfois baaxul ma daan defal nii defal nii defal nii te alhamdulilah ñu si yëg changement di si yëg avancement bu baax a baax waaw Seydi Assane Ba waaw kon leer na nañ kon suñu bokkar ñu bàyyi la rek nga muyaat ñu beneen bay laay amul maas njool mi yaay borom diine xalal nga nooyoon leeral nga ngirum dee na ah, xam naa ci say jikko ñetti tee meer da dul jeex am nga kiraama sa mbaax rëy na kulim juum rafet ji ko muñ gu yaa xam-xam gudul jeex laay yaatu taaru tabe maanu am diine amuk lee jalilu zikru rabbaan walla ku xañ xaw su dooseeroot yoon nen banaan lay laay laalaaw lay laa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 mi jantubu diine yaatim ga loxo ca kaw mi jantubu diine yaatim ga ay waay di nga naan si géej leer yaa ngi baawaam rabbil aalami waaw waaw sëriñ sayte du caaxaan yow daal gëmal li ma gëm ma jàlle la yaag sa mootaay di rabbil alamina laay sëdëm ñoo gaadi yàlla yaba jamaan aw leen xayartuma deena bàyyi laay jël jaay leen xayartuma deena bàyyi laay jël ay waay ko dem lay na muy jaayoog ñoñam laaw bilaay ku dem ilay na muy jaar loxo ca kaw ne bàyyi laay noon na sey dey jeete ga ay waxay ko bañ maam sey dina ma jox maa ko wóoroo dina ma jox maa ko wóoloo waaw ku bañ maam sëy dina ma jox maa ko wóoloo loxo ca kaw ni sanga soo nga sëy di donayee jaayu leen ni sanga soo nga sëy di donayee ay waay bu leen laam laame njool maa woote diine woote waaw bu leen laam laam aa ah, jituka zaayiran yaa imaama laahi narjo min rabbihi afan wa ufraana bay laay fa man yarni bi tariixi ka daan yarxe min rabbihi jannatan wa rayxaana فومتك على الخلق فازت نورهم يتلولوا سيبا وسبيان سر العالم لاي فدينك فوق الديان كلها في يومنا هذا من عجم ووربان ويمن خال فيك شيئا ملخونا بعيدا من رحمة لا يخسرانا jërëjëf jërëjëf ñoo ko déggandoo day mel ni xol yëpp sedd na bookar dëgg-dëgg xol yëpp seddati na ñoo ngi yëpp taxul nuyuwaale suñu mbokku téléspectateur yu SBT Média di leen yëgal na ñoo ngi fii ci Cambérène dalal fi ku baax ku ñuy wax Bocar Diallo di ko baax di werekaan dëgg-dëgg Bocar way wi neex na way wi daal mooy way bi daal day sedd xol Bocar ma lay laajaat suñu quatrième question waa kër limaamu seen diggante ak baatub laa ilaha illallah waaw sëñ Ibrahima di la jaajëfalaat di macha allah kontaan ci question bi daanaka boo xoolee lu tax laayan ñoom seen tur rek. ku dégg définition da ngay xam dañu am liaison ak laa ilaha illallah. bàyyi laay léppam alayhi salaam laa ilaha illallah la. depuis bas âge da koy daan foowee di ci kar di tudda yàlla. mu téye baatu laay ilaaha lalaa jox ñu ko bi mu wootee hmm. am na sax ci ay sikar ñi naan laay laay laa lanu bàyyi laay jox boo demee ci xutba bi tamit mi ngi ñuy jàngal fu ngeen mën a ne bu ngeen taxawee bu ngeen toogee bu ngeen tëddee sax te leen wax laay ilaaha illallaah hmm. fii axlu laay ngay ñëw gis laayeen bu juddu ñu koy tudd kenn du musique laa ilaaha illallaah la ñu gungee suñuy liir di leen ko tuddee laa ilaaha illallaah même bu ñuy julli hmm. bàyyi laay def ñu ci jàngal waroo ñëw rek julli da ngay wax laa ilaaha illallaah ba sa xol dem ci yàlla jàkkulaay ni moo waral ñuy sikkar laata ñoo julli jàkkaarloo tudd yàlla ba sa xol dem ci yàlla nga fàtte sa suusi àdduna yépp soog a dem julli taxaw ñaan sunu boroom ba ci boo génnee àddina su néew ñun ñu ngi leen di jooyee baatu laa ilaaha illallaah yaakaar naa looloo waral ñu naan axlu laay laayan donc baatu laa ilaaha illallaah loolu moo indi sax sunu kuréel muy axlu laayan waa laayan ñii ñoo màndi ci laa ilaaha donc suñu liaison ak laa la laa amul frontière ñun fu nu mënti dem dañ koy tudd xiyaaman wa mu dan wala zunubikum wa yatafakkaru fi ayatillaahi ka xal samawaati wal ardi bay laay wax dee leen wax laa ilaaha illallaah bay xalaam ci xalaat ci kéemtaanu yàlla yi ñu bindee asamaan ak suuf donc foo dem ba keroog bi muy génn àddina dernier koreem gi bi mu demee ba feebar gi téye ko mu ngi euh, yusi talaamisa zikrallaahi jàllala zikran kasiran wa tasbihan bi laa sami ba keroog bu mu demee ba lotta ba nekk ci diggante di waajal ñibbi moom Seydina Limaamu alayhi salaam mi ngi ñuy diggal ñuy sax si baatu laa ilaaha illallah donc laa ilaaha illallah moom la ñu bàyyi laa jox te moom la ñu am laayeen ak laa ilaaha illallah daanaka c'est une longue leer na dëgg-dëgg leer na Bocar euh, dëgg-dëgg li nga expliqué lu wér lu leer nañu nga wax barke Serigne Saliou euh, Bocar ma lay laaj euh, ndax mën nga ñu baaxee ci jëmm ju tedd jooju moom li Limaamu Laay tuuti maanam ci jaar-jaaram uh-huh. waaw <clears throat> Seydina Limaamu alayhi salaam képp kuy laayan war nga mën lu mu bon bon bon biographie am sax nga baaxee ko ñu <laughs> Seydina Limaamu alayhi salaam ki ñuy wax maam Alassane Thiaw mooy waajuram bu góor mm. Alassane Thiaw yaayam di maam kumbandoo yi laay mm-hmm. wàlliyu Kamal jigéen bu sell bu laab daanaka am na benn way bu ñu naan limaamu nee na jullikaay ba ñuy wax ci ngor mm-hmm. euh, fa la leer gi làqu woon bu Seydina Xalilullaahi daanaka bàyyi laa alayhi salaam leer gi bi mu jógee démb Médine Màkka ñëw Ngor xunta ba la dali mm-hmm. yaakaar naa ku fa dem visiter xam nga ni di nga xam ni boo amee seetlu di nga xam ni am na lu fa yàlla def leer gi bi mu fa nekkee ci histoire pour wax la rek sell teg yaayu Seydina Limaam alayhi salaam leer gi sag guddi day jug nekk na fa lu ëpp junniyaat di wër si xeeti fu mu war a dal hmm? di wër ci xeeti fu mu war a dal di xool ban jigéen bu baax moo war a jur Seydina mo Seydina Limaam alayhi salaam mi ngi dal si maam ko mëndooy donc muy wàlliyu Kamal keroog ba bàyyi laay di waaj a woote ñetti fan ya bi mu tëddee gént wàlliyu bu mag génn àddina aussi ba mu koy xëy di ko wax nijaayam bu ñu naan daaw dondooy xamul woon ni waajuram la bi mu tëddee da yàlla da ko mu gént euh, wàlliyu Kamal génn àddina mu koy wax nijaayam far ñetti fan loolu am yaayam génn àddina for en résumé mën nañ ne maam ko mën doy wàlliyu la woon si sellateem si sàmmoom ñooñu ñoom meññ Seydina Limaam alayhi salaam bàyyi laay nag ci xeetu lébu la la la la la la feeñ mm-hmm. waaw ndax yonente bi si histoire fi mu feeñ ay turbi la ba si lim nañ ba fukk ak ñaar muy douze fii tamit yof bi muy ñëwaat di ñuul fii si der bu ñuul même turbi la lébi lébu mu ngi toll si douze turbi am na ay xaagaan am na mën nga lim ba douze sëy naa limaa mu xaagaan na si xeetu lébu mu ngi judd en 1843 fii ci yoof woote aji boo daay laay 1883 mi ngi génn àddina 1909 yaakaar naa kooku mooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wa ay wax nga dëgg ku baax ki li nga expliqué leerati na dama gis benn aaya alxuraan bi wax si waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraxoo mooy nañu ànd doon benn bëggante soppante ñu gis laayeen yi dëgg-dëgg dañoo soppante dañoo solidaire seen biir lu waral loolu suñ bokkar waaw ba tey dañuy mën nañ dellu si jàngale Seydina Limaam alayhi salaam ndax bi mu ñëwee daf ñu jox tere ñu mooy git bu ne tey bu la nit toppee war nga mën teg ci loxoom mais tere gi mais Seydina Limaam nag li tax ñu mu jaral sunu lépp mooy daf ñu cest à fii laayeen li fi am mën naa ni amul fenn ñeme naa ko wax ngir bàyyi laay yu bari daf ñu ci génnee alayhi salaam ba li ngay wax nii ci xutba yi mu ñu koy jàngal soppante leen bëggante leen waa aljana dañu bëggante aljana amul ñaar ñu noonante bëggante leen ala rawatina nag ci mbooleem demalante bi si wàllu diine yaakaar naa nit balaa ngaa nekk lan wala tijaan da nga war a doon jullit ba pare soo ko ñëw bàyyi laay dem na ba ñuy jàngal ci xutbaam même ki yow mii laayeen amoo droit di ŋàññi murit ki gëmul amoo droit yow murit bi di ŋàññi tijaan loolu yëpp Seydina Limaamu alayhi jàngal na donc loolu boo ko déggee yow sa da ngay da ngay da ngay aisé c'est-à-dire yow jullit bi di nga dund aisément ba doo amal kenn àq donc ñun laayeen looloo waral dañuy demalante ba ci bàyyi laay mi ngi jàngal ba naan ñun kilifa diina sax bu wootee si mbiru diina dem leen ngeen jàppale ko kooku kon xam nga ni baax rek la def moo waral axulaay amul frontière bu buñ demee daanaka sax si way wàllu kër Seydi Hadji Malick da nga naan ñi ay tijaan lan bu ñu way murit nga nit ñi ay murit lan donc Seydina Limaam moo nu ko jàngal te loolu la ñu xam kilifa yëpp lan boole fonk di leen jàppale seen mbirum du ñu ŋàññi kenn du ñu xas kenn du ñu boddi kenn ñu ngi noonu. Euh, li nga wax day lu wér ndax damay gis euh, laay ni seen jotaay dañuy woy wayu murit di way wayu tiijaan euh, seen xalifa bu tedd ba wax nañu ne am na doom bu tudd Serigne Mansour si am na ko tudd Gaynde Fatma lu waral loolu maanaam ak maax googu lu waral loolu. mooy li ma la wax rek sëñ Ibrahima léegi yaakaar naa Serif Abdoulahi sunu yaakaar googu nga xam ne tey fi diine ji toll moom la mm. dem na fu ne siwal fa Seydina Limaam alayhi salaam yaakaar naa Baay Laay dafa doon wax drapeau bii di folot ci néegu maam ku ma ngoy bu ñëwee sama yoon gi siw kookoy Sërif Abdullah mm-hmm. daanaka euh, mission si kër Baay Laay dafa am am solo Baay Laay da ko déclaré lu jiitu juddoom waaye mu ñëw jàngal waa àddina du ma ni waa mais waa àddina mm-hmm. ndax que ñëpp laay fu mu daan dem ma tànt da nga naan kii fii la bokk ba si kër Serigne Touba yàgg na faa dem di tànt di waxtaane sëñ Bamba di waxtaane Seydi Hadji Malick waaye nag loolu loolu yam fa mu jël ay doomam di leen tuddee kilifa diine yooyu daanaka ñaar nga lim rek mais ëpp na loolu wala azim ëpp na loolu donc loolu référence la Serigne laay dañuy ñaan yàlla nu ko yàlla fayal yàlla yokk ay leeram duñ ko mos a fàtte abadan abadan yàlla yokk ay leeram te tam nu barkeem donc lépp si dafa dégg waxi maamam rek li mu wax ci xutba ba mm. et puis déclaré yi mu ko déclaré woon ak mission am ak li war dëgg-dëgg jullit te mu nekkoon si mm. donc kooku référence de si képp kuy jullit mm. Serigne Abdoulaye yàlla na ko yàlla fayal amiin leer na ko baax leerati na kon Seydina Bokar kon dañuy soob rek sunu ñetteelu way si mm-hmm. barke borom Tuubaa bismillah may tàmbale way bismillaay may tàmbale waaye Abdoulaay Thiaw ka jot naa yaa sërifoo moo ma may tax ma xam moo ma may tax ma xam baax ma wàllif loo yaa sërifoo Abdoulaay mi doy na yàlla doy na baay laay doy na sëy bee doy na maam joon am yaa sërifoo Abdoulaye mi war na noo doy Abdoulaye mi war na noo doy ñun sunu jiital dee na doy abdulayo bisimilah ma door wee bisimilah loxo ca kaw bisimilah ma door wee ak général be bisimilah ma door wee bisimilah aboo tey digal ku fi man way abdulaay dano kay way maam jëmu di yoneen ba abdulaay di far doon baayu Abdoulaye Thiaw moo ko jël di jawaadoon baayu Idrissa bismillah ma door weebe loxo ca kaw bismillah ma door weebe bismillah ay waay dey digal ku fi man way Abdoulaye danu gay ndax maam jëmoo di yónneen ba Abdoulaye moo ko ca kaw man mi ko fentaal man mi jóg ay waay yàlla moo ma ko sante bor la may ki ka fay ndax ñin siñel ba ca gàppa Abdoulaye ku jël bi jawaadun ayu général ba boo xamul Abdoulaye Thiaw lu ko ca kaw boo xamul Abdoulaye Thiaw boo xamul ay waay jàngil sooratul Mariam dinta gi toroba ndax maam jëmoo di yóbbee ba Abdoulaye di farado ay Abdoulaye Thiaw moo ko jël ni woon Abdoulaye darapo bi di folot ci néegu kuma goy bu ñëwee sama yoon wi siiw Baye Abdoulaye leeral na Baye Laay ba xoli leeral na Isaa ba xoli leer réyul du xasaate moo di goro leeral na lislaamu ma Baye Abdoulaye murid bi tiijaan xaadir bi naan la ay jërëjëf xaddamta islaamana suntal ala kon duma la am di wut keneen duma xool di keneen ndax yow sa waay waayu keneen am nga gërëm na tey antal xalifatu aat mamtal muximaati ku sopp baay Abdoulaye nel nii ñu màggal baayu dëri sa laay suma ridnaaw limaamu wa xalifatu suma umar wa abu bakirin wa axlimi baay abdoulaye taw sadaxta maa xulta fi man laahu arsala o tabli an daawatu fi saayiril umami ko dul am dut keneen du dul a xool di xool keneen baay sa waay du ñee waayu keneen yi Bokar ak ñi lay awu day mel ni jàng bi daa sedd xol jàng bi boo koy déglu da ngay xam ne ñi koy way yàlla rek moo tax ñuy way ba tax na de mel ne ñoo ngi suñu catal émission mu ñëw nag ci carrière bi bi ndax am nga album ndax daf nga am na ay morso wala single yoo wàcc mu toll nii. waaw sëñ Ibrahima wàllu carrière bi aussi daanaka. ñu ngi ci boobu ba tey comme ni ma la ko waxee depuis 2013 mu naan depuis base mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci wàllu way ndax heure bu nu xëyee rek ñu ngi ciy am avancement bu baax a baax te yàlla rek a tax nag ñuy def yàlla seede na ko yàlla rek a tax ñuy def amaana dañ nangu dogal bi mooy li ma rek nattu bi la yàlla nattu donc dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax tagg yeneen ñëpp xam nañ ni li ci nekk ci ay payoor kenn xamul nu mu toll yàlla na yàlla na sunu muur bi ñu ak moom wàllum carrière bi nag dañ ci sa war a wax ndax boo xoolee amaguñu album waaye lu si mel ni ay single ba ci ay clip yaakaar naa ñu ngi di nekk di ko préparé ndax ñëpp xam nañ ñu appel Seydina Limaamu alayhi daanaka li si des bari yaa wara الدوار يا دون للجنان ويا بصرى لمن زار إمامي لا إله إلا الله بيام تسسن إجرة النبي بيد الفدر في مسلى الكرام ويا جبا وذاك اليوم هيدر دها الاثنين في روض الإمام أتانا مغدزات في صلاته من المولى بخير الازدهام له طير خريب في طيوره la baynal barri wal baxreen tiyaami walaay bayaadul jismi tayrun kal xareere tawilun fammi kal korkeere sa baayam mooy imaam allaay xabiib allaay rasuulo ilaayil arsi zil majdil izaame لا إله إلا الله سقل سدين بينكم تبنيو نتاك سيبا ولو نياكا دي سونا defal nu ndimbal boo ko gis muy saxoo naan alhamdulillahi rabbil alamin salatullah suma salatu rabbi alal muxtaari xayrul alamina